mooy wër ñu wax sax xëy na ñoo xamante ne buñ añee duñ reer buñ reeree duñ ndékk buñ ndékkee duñ ndog buñ xëddee duñ duñ ndoganal ñooñu ñu. moom tur bi naka la. ñooñu Papis Papis. loxo ci verbe papa la génn. waaw. xam naa yéen bi naka la. sant yàlla bu baax alhamdulilah alhamdulilah bu baax. dafa coono yi. sant yàlla bu baax. waaw sonn ci yoon bi. non sonn ma sonn ma ndax damaa romb kër gi rek maanaam ma am ay xewal yoo xam ne dama koy jox rek ma romb kër gi rek daal naa leen ko jox benn yoon. ah borom kër gaa ngi nii rek. ah man de sëñ bi lan mooy borom kër gi ba mu jot dama xam ne moom sax. arrière nii. dellu de dellu ci ginnaaw gën a dellu dellu. waay waay waay ja dellu waay sama waay waay. ah yow Samba lii mu doon naan. da nga jot sama jikko la. ñoo ngi jéego ci dérangement bi. xam nga moom dafa xaw a lii mu te ñu koy faral ci jàmm bu baax. maa sant yàlla. alhamdulilah gis nga ko de. waaw waaw. maanaam kalaf yoo xam ne amul lu mel ni mbubu mii. waaw. ñàkk a ñàkk a ñàkk a ñàkk gisuñ ku ñu dimbali la. néew bu doole gi foofu. <laughs> ne leen alhamdulilah. alhamdulilah. bitim réew. alors xam nga ma la yóbbee daa. investir si réew mi. te man loolu rek ma tax a jóg. dimbalee waa tey ñëw dugalee ba mu. allah akbar ñëw nga foo mën a ñëw. faneen foo ko def yàq nga sa xaaj. waaw faneen foo ko def yàq nga moo tax man daal. ba tax man amu toogaay bu yàgg damay ñëw. dem ba Samba Samba Samba fi mu toll dama am yoo xam ne dama ko war a dox. Samba Samba yow Ibrahima Ndiaye mi la leboon huit huit huit millions cinq cent yi ak deux cent mille ak vingt cinq juróomi dërëm ñi nga leboon. ba léegi fayoo ko tey sax ci dàqagul. tey ci dàqagul dal ci kay. xaalis bi moom da nga koy joxe nii wala da ngay def. non tey moom mënuma joxe dara ndax dama doon dugg nii di waxaale ndax xam naa ne fii deux jours. booy ñàkk lu wax dëgg ak dund boo xam ne ñu dañu mën a dund feeg weer koor bi. waa kii yéen a kabaar yi yow la non incha allah loolu moom na sa xel dal. non jërëjëf père lii. foofu foofu yéen a kabaar yi yéen a kabaar yi yéen a kabaar yi yàlla si dara ma trop. waaw kon xam naa. waaw ñoo ngi dund di la bàyyi xel. incha allah rabi amul problème. kon maa ngi gunge bi. waaw waaw jërëjëf maa ngi gunge bi. si Ndiaye jërëjëf. jërëjëf. yàlla yàlla. donc gars yow. war naa ma si yàlla leen jàmbaarloo. yow mun nga bàyyi sama kër gi kat dégg nga moom mooy ginnaaw. yow na fi kii ñëwee nga ko yaa moom kër yi. wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma Samba Samba Samba Samba. waay bu la ma Samba waay. ah Samba Samba. waaw kii yëpp yëpp. Samba xulóo rek seen biir bëri na de sàmm xam lu ngeen problème. xale bee la may sens. ah. bien. Godsa na ma. ah ñu ngi ko xaaral ko nekk ngay wax Godsa. li lu bëgg noonu lañ koy wooyee. wóor nga wóor nga si biir jëm noonu la si. yow jox ma sama téléphone bi damay woote incha allah mu mu dama ko naan la bu ci sën la xam naa. loolu eh boo ma sa morom man. xale bi dafa lay dem kii di mu wax.

Dai, datela. Come, come, come. damay may kaway yow da ngay gént wala la leen fii yow nii sa baaraam di waay. booy kaway bi booy booy kaway bi doo jël nañ. booy kaway bi du jël xanaa du ne ma ne téléphone bi nga xam ne amul lu lu lu moom nii muy góor saa bi jël moom la jël. non jël na Aliou Seye sama sama Aliou Seye ca la bokk sa Aliou Seye ca la bokk. dégg nga lu benn Aliou Seye Aliou Seye. war naa ko ci yàlla def la jël ak man. Aliou ñaari Aliou Seye la jël yaar yaar la jël de. waaye yow sa poste bu Aliou yow xam nga kii bi mu yoroon ñaata lay jar ci xaalis sax. loolu mooy jënduma lool. bu jooy de man naa war a jooy man mi nga xamante ni saa géej yëpp seen numéro yi ca la nekk. waaw kii gàncax gi noonu ak ak may sa fànn ñoom ñëpp léegi nga la xool ñoom. man naka ma gis muy lem lem li bët toog fii naan ndimbal lii njaboot yi yaay nii naan nii naa xam ne kii nit bu baax lii lépp yaa ma ciy dugal la ay waay kii tas na suñu yaakaar deru jooy jooy amatul da nga yëngal sama ciment bi xam naa damay dugg ci dal sama sama sama sama ngaalu-ngaalu ini